ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën jot yooyu les notifications. donc euh, dama ñëw pour remercier vraiment le ministre de la culture si vraiment disponibilité am bi mu ñu bëgg a dimbali en tant que rescapé donc mémorial bi nga xam ni vraiment kenn mënu koo taxawal. te rescapé yi seen présence nekku ci donc moom mu teel a comprendre loolu ba vraiment accepter ñu que bu paree présence rescapé bi am solo trop. mais vraiment à notre grande surprise lim ñu gën a defal ñu koy sant di ko gërëm muy suñu seule femme rescapée di suñu yaay di suñu bàjjan di suñu mag si vraiment moment bi nga xam ni soxla na ko soxla na ndimbal trop mu vraiment defal ko surprise bi nga xam ni vraiment dafa sedd suñu xol. donc nous on tenait à vraiment remercier Kouchi trop trop trop trop parce que suñu nous la que nous avons c'est la seule femme rescapée du Diola. donc suñu loxo jotewul suñu ginnaaw donc bu ministre bi pour lu mu ko comme defal na association rescapée famille de victimes donc vraiment on ñu daf un ñu dafa dafa geste noble sur ñun mais on tenait vraiment à le remercier C'est vraiment di ko ñaanal mu mu jëm kanam merci beaucoup. femme rescapée de Joola ministre bi dafa ma defal surprise ndax lii man yëguma ko woon démb sama càmmiñ yi oo na ma ñëw bi ma ñëwee gis ngeen li mu ma defal mënuma lu dul bàyyi ko yàlla parce que fi mu ma jële sori na maa ngi ko bàyyi ak yàlla parce que mënuma ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification